bismillah doxu ñaxtu ba day a ah. daal dinañ ko autorisé ne sur quotidien ne marche bi nga xam ne nag maanaam dinañ ko amal tey day ngir xeex courant bi nga xam ne ko dañu ko yokk waaye tamit gii mari sagna ñu génne ko ca kaso ba waaw waa ñoo lànk day daal dinañuy tuxal na kon marche ba daal dinañ ko yóbbu nag ci avenue Cheikh Anta Diop gale Ndakaaru njaay jël Diop réew mi quotidien ne marche bi nga xam ne nag maanaam danañu ko amal tey day waaw ca université Cheikh Anta Diop gu Ndakaaru googe lay dooree daal di jeexee nag kon ci rond point poste Médine bi lay Fadel Baro ak ñi mu àndal day waaw ña ngay woo askanu Sénégal googe na ñëpp génn na ñëpp génn na mobilisation bi saf ngir Guy Marius Sagna mi la jàmbaar ji ñu daal di koy génnee ne ko ci kaso bi la Fadel Barro yemu ca ndaxte nee na gis nga teg loxo bi nga xam ne kon maanaam teg nañ ko loxo Guy Marius Sagna mi la ñetti nit la ñoo nekk ca ginnaaw arrestation ba maar day taali ma ne ñoo ko orchestré ku njëkk ki day juge ba la Samba Sall waaw ñaareel ba ministre de la justice ñetteel ba président de la république moom Macky Sall maa la ko wax bay yorin gu bon goo xam ne kon maanaam moom la ñu yoree nag suñu alal ci lée du ñu ko nangu yow jàpp njëg yëpp daal di koy yokk waaw waaw Fadel Barro day ci yéene kaay gi waaw nee na ñi nga xam ne nag maanaam dañoo mënul a ñëw ca marché boobu ñi am waaw nañ takalu xonq rek na mbir mi xonq cor na dëkk bi xonq cor taxi yee kalandoo yee yeneen moyen de transport yeneen oto yi waaw na lépp xonq rek te mbiibal leen klaxonné leen pimpon pim ci na a orienté te étudiants yi ngir ñu fekk si leen waaw enquête yéene kaay ne coowal Guy Marius Sagna googe waaw avocat mi day ñoom maître Moussa Sarr daal dina ñuy déposé waat nag waaye naka ni ko di liberté provisoire ci jamono joo xam ne ñiy xeex lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu doomu aadama droit de l'hommiste yi waaw la ñu bëgg daal mooy internationaliser xeex bi yóbbu ko ci bitim réew Sud Quotidien xam ngeen président Macky Sall lan la wax ci coowal Guy Marius Sagna gi waaw Kor ma Faye day nee na xam nga sooni da ngay marche place de wala ca kanamu palais bi de la république waaw yow xam na jàmm taxulaa jugati de Macky Sall wax lii waaw yéeni kaa gi ne moom Macky Sall tamit daal dinañ koy natal day yore nam gi ci wàllum politique ak wàllum koom-koomal dundunu askan wi du social en tout daal ay naataangoom xamal nañ ko ne ko ni ngay doxalee war nga maye bi waaw jàpp nañ ne Sénégal day war naa def ay jéego nag rawatina nag li xale taalibe di dund tere yi nga xam a marche ne kon maanaam saay boo xëye ñuy tout cas gi nar naa sax saf ndaxte nag waa ñoo lànk day lëkkaloo ak étudiants yi déet di waaye lëkkaloo société ba waaw te waa Benno Bokk Yaakaar tam nee nañ danañu organiser contre marche nañu ñëw laas de doxu ñaxtu boobu ngir courant bi nga xam ne ko nañu ko yokk waaye itam génnee gii mari sañaa ci kaso bi waaw ñoo lànk day li ñu bëgg mooy mbooloo mu dul jeex marée humaine mobilisation les ko yéene kaay ne waaw parce que marche bi moom ko ko préfet bi autorisé na ko jox na Diop di amaat ci Sénégal mar waaw réew mi quotidien ne yow xoolal moo autoroute à péage bi bi day la ñuy sàkk mooy négocier waat contrat bi atuba bi laa Sénégal gi ba fii ñuy wax ak yéen fii sin jotagu ko laa la wax mar di ne waaw parce amul kenn ku bokk ci privé bi ku am un pour cent ci contrat bi laa ne Sénégal ci boppam moo bëri ñun dool téeméer boo jël ñeen fukk ak juróom benn yu total ñaar 46 virgule 7 pour cent dañoo pauvre laa la wax la ilaha illallah juróom yi gën a ñàkk allahu akbar laa ilaha illa allah l'observateur de programme alimentaire mondial day génnee na ay chiffre am de sénégal xiif yaa ngi fi de lu tolloo ñeen fukki junni yu tëgas laf gobar jaase ñuy dundee lu ñu togg añti bu ca reer lu ëpp téeméeri junni ci ay élèves yoo xam ne day soxla nañu ndimbal de alaaji Malick day ci exclusive yéene kaay waaw nee sénégal ci boppam réew mi moo dabi ci coono toroxtaange goo xam ne kon maara day daali di souffrance ñu ne cour des a section générale d'état ci lu jëm ci wàllum caisse d'avance ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye Gueye Diop nga xam ni moo tax ba ñu tëj Khalifa Babacar Sall waaw dañu koo taf tafee mbiliñ mbàcc rapport bu ñu génnee ko laa la wax taf taf tey ci àjjuma ji day rapport yi nga xam ne moom la Cour des comptes di génnee ni lée rapport yoo xam ni 2014 ba léegi ñu nelaw waa léegi loolu moom lan lay tekkeeti ak ban njëriñ la amati te xam nga ñi fi nekk naan rapport yi ñetti téeméer ci ay milliards la ñuy jox Sénégal mu dugal ko ci wàllum énergie gi lée ci teewaayu Mohamed Boun Abdallah Dionne la woon Matar Cissé ak Amadou Hott ministre économie waa suñu ministre économie lée lan moo tax Macky Sall yónni wu ko France direct news ne ña ca délégation ba dee waaye Amadou Ba ministre affaires étrangères gannaaw ba mu gisee naataangoom gu France di Jean-Yves Le Drian waaw daal dinay betoo tamit ak ministre France guñ denk lépp lu jëm ca wàllum Turquie ñi koy gagné neexul français waaw lan moo tax ba Amadou Ba di liggéeyu Amad Hot moo jaaxal ñëpp li jaaxal nit ñi kay mooy enquête yéene kaay nee na bi nga xam ne maanaam fekk nañ ko seen bato ba day moom Grimaldi daal dinay weeti nag li waa duwaan wax eh eh eh waaw parce que nee na ñoom ca ñoom ñoo gis saakuy ginnaaw ga la avocat yi bi ni directeur général lu duwaan Les Échos yéene kaay waaye waa duwaan moom xanaa dañoo kàcc teta yuñ ko looloo ARMP day daal dinañuy faram-fàccee nag milliards nañ ko caxa-caxatee grand place de directeur général u day tuumaal nañ ko de ne Thierno Birahim Fall daa fitnaal ñaar ñu fay liggéey aa fit naka kay nga makki 2012 ubbil évidence Sénégal nañu maître Moussa Diop day ma ko jiite woon si centre nañ ko ñoom aji mbergaan kadu day ak ñoom Mohamed Diagne ñoo fa jaar Vox moo fa indi coow la moo leen néewal doole maanaam léegi day moo daal di remplacer maître Moussa dee yu yi nga xam ne maanaam nit ñi mënuñu koo fàtte day enquête yu ci bëree bëri daanaka mujjul fenn papaay Aminata Diouf mañ fi rayoon ca wakaam day nee na ñun enquêteurs yi booba lañ leen gëj a ne kaay ne coowal njooba sekk bi nga xam ne kon nañ koo rey ci sib si la day waaw jàppaat nañ ca ñeent laa wax ki nga xam ne moo mujjee woote ca téléphone ba day jàpp nañ ko <laughs> te dañoo mën a rey rek waaye nag ak luñ mën a rey mën a rey mën a rey mën a ray mën a rey buñ fàtte ne suul gaz du ko tere xeeñ troisième mandat dañ ko fi tere te Guy Marius Sagna daa war a génn boo paree mën a la tëjal nuyu naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay tey jii étudiant yëpp jóg di rendre hommage ki nga xam ne mi ngi wuyoo ci turu Balla Gaye te nu faatoon ko niki 31 janvier 2001 mu war a am 18 ans ba mu dëddoog léegi cey na ko yàlla yërëm waay mars bi nga xam ni moom la gaañ yi di waañoo lànk ñoo bañ war a mars te ñoom nag seen mars googee du leen lu dul courant bi nga xam ni yokk nañ ko ci askanu sunu gaal bëgg nañ koo amal fësal ko niki tey ci àjjuma ji waaye ñoom ba tey la bokk ca seenub xeex du leen lu dul ngir ñuy libéré Guy Marius Sagna eh waaye ndaw samba nga ni waaw waaw yéene ubbil yéene kaay bi di Sénégal ma ngay fësal ak di xam le ni boobu le mars préfet Ndakaaru Ndiaye Jal Diop nangu na ko ba boobu le mars nag ñu war koo defee foofee nga xam ne mooy ca université Cheikh Anta Diop eh waaye ndaw samba waaw waaw axe avenue de Cheikh Anta Diop rond point poste Médina nga ni Moustapha Diakhaté ba tey jël ay kàddu yëkkati ko jagleel ko ki nga xam ni ma ngay wuyo ci turu Ibrahima Sène Ibrahima seen nag moom gis ni ki nga xam ni moo di Guy Marius Sagna mii nu jàpp la leçon la ci ñi nga xam dañoo jóg jalgati loi ak règlement wu askanu sunu gaal Moustapha Diakhaté nag yooyu la kàddu nam ko gisee doon na lu doy waar nga ñu dem Ibrahima Sène nag la mu wax jëmale ko ci wàllum courant gi nee am na cinquante quatre pour cent des sénégalais yoo xamante ne abonné nañ ci Sénélec eh waaye ndaw Samba ñoo xamante ñoo gën a faible laa wax gën a modeste waaye cinquante quatre pour cent yooyee di ay néew gi doole ñoom du ñu yëg benn yoon li nga xam ni mooy yokkum courant gi ba gi nga xam ne yokk nañ ko courant gi ñi koy ay ventilateur ay climatiseur waaye ñuy utiliser courant lu bari rek nga ni ñooñu de gisuma leen baaw waaye nag yokk nga 10 pour cent la waaw waaw waa coalition jot na feelu ko ca Sénégal set ñoom di yëgle ak di xamle ni Guy Marius Sagna mii li tax ñu jàpp ko du kenn ku dul Macron eh waaye daw samba ñoom daal nee nañu Macron moom moo ni Macky Sall tëjal Guy Marius bu dul loolu dina yàq sa mbir eh waaye nga ni ndax Macron ko sababam a Kenya Africada ba nag mooy structure bi regroupé waa diaspora africaine bi nekk foofee ca Belgique ñoom nag ci ndaje mi nga xam ne amoon noon ko war a wax jëm ci wàllum franc CFA bi ak wàllum éco bi ca leen yëkkatee ay kàddu la ko ci ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna xam na ni nag moom moo osé critiquer njuuj njaaj ak tappale yi nga xam ne mi ngi nekk ci diggante Macky Sall alay lay ëpp la ak kan ak ki nga xam ne ñooy waa France e Guy Marius Sagna nga Makhtar Gueye gi borom Jamra eewee eh na Samba maam Makhtar Gueye ba tey ay mbiram ma ngay wëy di fës di dem digganteem ak rangu digganteem ak rangu coow laa nga mel ni tulleeg màlle ubbil yéenekaay bi di sans limite maam Makhtar Gueye waat na cay kàddu waaye itam wax na ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum légalisation de si yamba sinema kaali books ay ëpplew ci jooji la jamono daw nañ seeti Seneweb Seneweb ñëw fësal nu nataalub Diomaye Camara muy wax di jëm di jokkar bi ñenn ci askanu sunu ko metti fii ci askanu sunu gaal du leen lu dul ni ñuy jàppee ñenn ñi seen taxawaay ak seen gis-gis ci miss bi nga xam ne missub Sénégal mille 2020 di missub Fatick moom ni ko gaañi di def ci réseaux sociaux yi neexu ko benn yoon métti na ko ba ca kanamu yàlla eh waaye ndaw Samba waaye nag nee na sénégalais noonu la baaxoo chaque jour rek day jugé li nga xam ne mooy ay dëkkandoom au ñu encouragé ko ñu koy ñaawal nga ni lu ci am ba des daal lépp lépp lépp rek coow lu fi law ko lawal du leen lu du réseaux sociaux lu fi baaxi réseaux yee ko baaxal daanaka ngeli ca ay kàddoom moom Diomassy Camara mu nee na ko félicitations à neeti ko sois fier et représenter dignement ta région et le Sénégal eh waaye ndaw Samba nga ni wax na dëgg nag segam fi mu toll ni moom moo war a représenter Sénégal nag moom fi mu toll ni nekk ko gaa ñëpp ñaanal maa la comme bii mi ñu dem bu nu dawee waaxu jëm ci làmb ji Moodu Xarañ Loo moom fi mu toll ni tembe ñibbisi na ci askanu sunu gaal moom mi nga xamante ni demoon na foofee ca France eh ñëw na nag ñuy laaj moom Moodu Xarañ li ko indi ndax face à la ndax nottal contrat bi mu signé ak Luc Nicolaï la wala ndax ñëw napp ki nga xam ne moo di Ama Baldé la lu ci mën a am daal moom dikk naak ay formam yu baax eh waaye ndaw Samba roi des arènes yombul de nga ni ba tey ñu daal di daw jéem leen a tàggoo foofee ca Seneweb Seneweb indi di fësal ak di xamle ni ci mbirub soxna siinu boo mën di Njóoba Sekk moom Njóoba Sekk nag yéenekaay bi di Seneweb ma ngay fësal di xamle ni police yi teg nañ loxo ñeent laa la wax ci ñoom ci mbirum enquête bi laa la wax waaw ñeent ci ñoom daal jël na leen ngir laaj maanaam wàllum audition yéenekaay bi di Seneweb Seneweb di fësal ak di xamle ni bu nu sukkandikoo ci RFM ñoom ñeent ñooñee doonoon ay xaritam ñoom ñeent sax ñoom ñoo nekk ñeent ñi nga xam ne ñoo ko bu mujjee woo téléphone mujjee waxtaan ak moom ci téléphone te ay waajuram ña ngay fësal ak di xamle ni ginnaaw ba nu ko woowee téléphone ci la génneewoon lu ci mën a am ba des mooy maam góor Jazaaka Jazaaka nee na ma ngay attaqué militaires yi eh waaye no sàmba lu mu leen wax bàyyi leen lekk ceeb bi tëdd nelaw bi te génn défendre askan bi nga ni xaaral ba subaak jàmm ak salaam ci yéenekaay yi jàggeen jëf